ausbillahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani barakaatu mbokk Touba mbokk senegaal maa ngi leen nuyu bu baax leen ziar man la docteur Ousmane Gueye di médecin dëkk Touba di chirurgien généraliste ci hôpital Matlaboul Fawzeyni bu Touba yëkkati samay kàddu di ko sof ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ministère de la santé mu ngi koy def ngir feebar bi nga xam ne dugg na suñu réew dellu ginnaaw liggéey bi nag sama mbokk médecin di sama mag docteur Maguette Ndao laa gis vidéo mu yeema ci ma xam ne jug jot na feebar bi ñuy wax coronavirus dañ tuddee ko covid 19 dugg na suñu réew dugg na tuuba ba ñu seetloo sunu dëkk biir tuuba li fi amaguñ ci ay cas ëpp na li ñu am ci yeneen cas ci des réew yépp feebar bi mi ngi wàllante ci nit jàkkaarloo yow di sëqët seen diggante matul un mètre nga noy ko mu wàll la ko nit ku am feebar bi ñëw nuyu la su jóotal la saafonteeg yow ngeen bokk sësaloo ci ab oto ngeen bokk dajee ci ak ab événement bu mën doon kon ni muy wàllantee yaakaar naa li ci autorité di wax doy na sëkk li ci des nag mooy suñu xalif général sëriñ Mahamadou Muntaxa yàlla ko fi yàlla yàggal lool te wéral ko ak ñu ànd ak di liggéey ba li mu yéene defal Serigne Touba lépp mu def ko wane na aw yoon moo yëkkati na xaalis bari bu takku def ko ngir jàppale réew mi wax na itam ne li docteur yi wax nañ ko respecté kon ñun itam war nañoo làmb suñuy poos def ko ci xeex jàngalo ci ndax bu ñu demee ba réew mu toll ni Italie ay médecins di jooy di jaxlé dem ba liñu soxlé ay masque wala oxygène bu ñu noyyi ñu am ci jafé jafé té mbokk ci juroom ñaar réew yi gëna am industrie ci monde bi dem ba seeni mi réew tuddu France tuddu Allemagne def seen réunion ni ñoom lañu yor ku ci neew ci matériel dañ koy sakana duñ ko jox kenn kon ag nañ foo xam ne ku nekk war ngaa jël responsabilité nga toppatoo sa bopp comme amuñuy moyen nañu tàmbalee ci sunuy kër yi dañu jël ndoxu saabu yu doy saabu liquide moytu saabu morso yi ndax saabu morso day tey jàngoro saabu ndox yi nañ ko jox suñu kër yi di wax gone yeeg mag ngi ñëpp di raxasu di sangu bu baax ngénte xew yi ceet yi nañu tudd te dem nañu fas sa yi te dem te bañ a woote ngénte bañ a woote ceetal magali, ak gàmm yi ak cant yi nañ ko def ci sunu xol def ko ci sunu biiri kër ba romb événement bii ba romb lii ñu dal ñu doog cee dellu siwaat yenn yi ak xër lay niru ak ëppal te bu ñu di lekk bu ñu nañu bàyyi jël gennu paan def ci ndoxu saabu ki ci gën a nekk kilifa walla mag ci njëkk raxasu bu noppee ñeneen ñu topp ca ku nekk jàmm sa loxo ci biir loolu nañu xam ne ki njëkk raxasu képp moo raxasu ñi des ñëpp raxasuñu loolu nañ ko xewil nañu jëlu sata la def ci ndox mën nañ ci yokk sax tuuti eau de ku ne taal sa loxo dékk dékk ñi sottil la toqalal la saabu liquide nga raxasu bomb bu baax raxasu war naa mat lu mu néew benn minute ne ñaari mur sax moo baax waaye nag lu mu lu mu war naa benn mur di ko faral def ku jóge ci wanag bi raxasu te nuyoo bi nañu yam ci nuyoo bi lislaam asalaamualeykum wa rahmatullah nga ton aleykum salaam wa rahmatullah bañ koo def ni ko xam ne ak cosaan mooy joxante loxo fu ñu Lola amon ci message di jégalu ñëpp di tuubal ñëpp di wax ni li may wax tok ci kanamu photo bi di photo Serigne Touba li ma ci djublu rek moo ñu xam Serigne Touba rek moma ñor Serigne Touba moy Sénégal Serigne Touba mooy yalla ak ñu wërgal këpp am nañ njukkeel Serigne Touba kon dekkam bi bu fekkee lu mel ni dugg de bay jël centre de centre darmar darmar naan def ko sante référence difa traité ñu am ño xamni ni gis nañ ci ñom corona virus alors que bu ko dé comparer hôpital fan nga xamni ño préparé wu lu yàgg am ci expérience ci Ebola ba neug ni professeur yi dakk jangale ci walu maladie infectieuse jaar fa ak ak jaar jaarati fa ñu nekk fa ba tey jii kon war nañ xamni situation bi grave na limay may bañal suñu wa dëkk bi nak moy dem ba nga xamni tey jii nit ki àgg na foo xam ne bu ne Italie la jógee daanaka dañ koy daw li may ragal na mooy dem ba nga xam ne boo ne Touba la jógee ñu daw la kon nañu ñaan nañu ñaan yàlla nañu jàng xasida yi nañu muslu waaye ña ko bind ñëpp dañ ci daan boole incha allah kon nañu ñaan te incha allah googu mooy nañ ci boole di fagaru jërë ngeen jëf